asalaamaaleykum waa Sénégal tey maa leen indi lu raal lu bees tàkk ay airpod 2 waaw ay airpod 2 laa la tegal nii de maa ko njëkk jaay ci Sénégal maa fit lu bees tàkk nee naa la am naa ci couleur bu la neex am naa rose am naa bleu am naa noir am naa blanc am naa rouge ça dépend si ku nekk ak style am yéen choisir da ngay daal di jël bu la neex rek tapp sa nopp ànd ak moom dox dox bi dem sa yoon def ba mu baax macha allah nee naa dama la koy jaay en gros comme la koy jaay en détail ça dépend ci yow rek noo leen ko bëggee ma daal leen koy defalee noonu abordable rek laa koy jaayee ku ci bëgg te daal di woote ci numéro boobu rek nga daal di tànn bu la neex ah ñu defante lu baax.